قوم من الحمد لله الذي قال في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وعليكم نارا وفي الحديث ما نهل والد ولده أفضل من أدب عزل أيها المسلمون المؤمنون واعلموا أن غربتنا اليوم يدور حول إرساد السباب حديثنا اليوم موجه إلى السباب الذين هم رجاؤنا ولعاسى ينبقي على السباب أن يسلهوا دينهم ويعلوا هممهم وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بكي جلدي ñu ngi dénk suñ bopp ragal yàlla ak topp yonentu yàlla muhammadu salallahu alayhi wa ala alihi ci mbooleem yëngatu yi fàttali suñ bopp fàttali leen aaya alquran bi ci sorotu taarif borom bi ne yéen ñi gëm yàlla fexe leen ba mucc ci safara musal seeni njaboot fexe leen ba mucc ci safara mu jël muccal seeni njaboot yonent yàlla muhammadu firi ko ci hadis ba wax ne way jur wi bàyyeewut doomam lu gën yar lum ko bàyyee lu dul yar loola mën na yàqu waaye bu ko bàyyee yar rekk bàyyee na ko lu bëri lu dul jeexati moo tax waxtaan wi tey wala hadis bi wala xutba gi lépp mën na ñu ngi koy jubale ci ndaw yi surtout jamono ji ñu nekk wali haasa yambaxi ala sabab an yuslihu diinahum wa yuxlu himmamahum ndaw yi war nañoo góorgóorlu ci seen pas-pas ci seen xaqida yi war nañoo góorgóorlu ci yëkkati yi yi war nañoo góorgóorlu ci ci teggiin wa yuasiruuna al ahdaa hum yusbihul ahbaab war nañoo bàyyi xel noon yi nga xam ne dañoo niru ak ay soppe noon yi nga xam ne dañoo niru ak soppe te duñ ay soppe mbokk yi jamono bii ñu toll bu ngeen bàyyee xel ni adduna bi di doxee ndaw lu ci góorgóorlu wut danañ la sànk ndax dañoo am ay nit ñoo xam ne dañoo niroo ak soppe fekk noonu lañ yoo xam ne dañuy xeex pas-pasu islaam dañuy xeex alquran dañuy xeex nit ñu baax ñi di ñu tiitloo di ñu ragalloo di ñuy dugal ci yoo xam ne suñ diine bëggut ko loolu mag ñi dinañ ci bàyyi xel waaye ndawi nag la rawati waxna léegi ci arab ne hum rajauna ndaw yi ñooy suñ yaakaar bu ëllëgee min bari ndaw ya fay taxaw bu ëllëgee ci jumaa yi réew mi bu ëllëgee ndaw ya koy yoore office yi bu ëllëgee ndaw ya koy yoore aduna dafay wécceeku ñi fi nekkoon dégg nga ñi fi nekkoon démb dem nañ ñun ñi fi nekk tey xal si nañoo dem suñ demee ñeneen ñoo fi nekk te nit dafa am ñaar warta fexe bañ nangu ko ci loxoom bu njëkk bi mooy pas-pasu diinaam ñaareel bi mooy kolcoom mooy aadaam aada bu rafet bi ñaar yooyu ndaw yi nañ ci góorgóorlu nañ ko bàyyi xel bu baax qaala taala innama saalikum seytaan yuxawifu awliyaahu fala takafuhum wakafuni in kuntum muminin loolu aya surutu ali hemran ci aya temer ak juróom ñaar fukk ak ñeent borom bi tabaraka wa taala ne sahaba yi ñi àndoon ak yonent bi salallah alehi wasalam ca xaree badaru suxra ndaw ñëwal na leen di leen tiital ba yàlla na leen kooku saytaane la te nit a leen ñëwaloon Medina nit waaye nit kooku bi ko yàlla joxoñee ci alquran saytaane la ko tudde xam nga nit mën naa doon saytaane nit mën naa góorgóorlu ba taxaw taxawaayu yonentu yàlla muhammadu sallallahu alayhi wa alihi nit mën naa taxaw taxawaayu malaayika ci jaamu yàlla ak set ak sell nit mën naa dem ba nekk saytaane ndax nit a leen ñëwal ñoom waa Medina waaye yàlla bi mu koy joxoñ def ne innama saalikumu saytaan ndaw loolu ngeen di gis yenn saaba yi saytaane la yuqawifu awliyaahu dafa ñëw pour tiital leen loolu nag ba léegi nii moom lañ nekk di gis ci jamono ji ñu toll may fàttali rek ne lu mbir mi garaaw garaaw ak luñ tiit tiit ak luñ jaxasoo jaxasoo suñ xaqiida yi buñ ko ñàkk suñ pas-pas mooy suñ koom-koom mooy li ñuy dundee ci aduna xànd ak idminaanu mooy dal soo ñàkkee sa pas-pas ci aduna dutu la amati idminaanu du am dal soo ko ñàkkee ci àdduna boo taxawee ci kanam yàlla mu gën a garaaw nañ fexe ba lu mbir yi garaaw garaaw suñ xaqiida buñ ko ñàkk suñ pas-pas yi buñ ko ñàkk mooy imaan bi gëm yàlla te óolu ko te nangu ko jaamu te bu ñu kenn weccil suñuy culture mooy suñu aada bu baax bi nga xam ne dañ ko fee fekkoon démb waxuma nag aada bu bon moo tax lii la yàlla waxoon sahaba yi bàyyi leen xel ndaw loolu saytaane la daf leen di tiitloo waaye li muy wax gëmu ci dara ndax dafa ñëw ne sahaaba yi makka ñi nga waaj waaj boo xam ne bu ñu leen fi fekkee yéen waa na dañ leen rey yéen ñëpp tiital leen sahaaba yi tooñ ñoom ñëpp jàkkaar la yonent yàlla Muhammad ne hasbunallahu wa ni'mal ñun yàlla doy nañu faale wuñ kenn noonu la seen xaqida meloon ñoom lu mbir mi tiitti lu mbir yi garaaw garaaw ñoom dañuy dellu rek ne hasbunallahu wa ni'mal wakiilu ñun yàlla rek moo ne ci suñ kanam yàlla rek la ñuy gis lu nekk باسكي هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الاول مونجك يونت يالله محمد فريكو ني دارا جيتوت كوفي انت الاول فليس قبلك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الأول anta al awalu fa laysa qablaka shay'un wa anta al aaxiru fa laysa bahdaka shay'un wa anta saa'iru fa laysa fawqaka shay'un wa anta al baatinu fa laysa duunaka shay'un nii la ko yonent yàlla mat firee woon yàlla yow yaa fi njëkk kenn ak yow yow yaa fi kenn mujjantewul ak yow yàlla yaa feeñ dara nekkul ci sa kaw pour nëbbu la yàlla yaa de pour dara nekkul ci sa kaw yàlla yaa nëbbu dara nekkul ci sa biir nii la firé woon aaya bi ku xam xaqida bi lu jamono jafe-jafe yow doo tiit yan na yàlla dëgëral suñu xaqida yan na yàlla musal yan na yàlla xaar ñu xaar njaboot gi yan na yàlla def jàmmu ci réew mi def ko ci réewi jullit yi yan na yàlla jeexal problème yi adduna bi feebar yi yan na ko yàlla dàq yóbbu ko ca àll ba buum del si waat mukk yal na yàlla musal ñi ci mbas mii nga xam ne dafa jaxase adduna bi yëpp te na booda yi yàq na business bi yàq na njàng mi yàq na lépp lépp problème bi kenn xamut lan la lu ko waral yëpp nag la ma waxoon rek laay jeexalee sama xutba gu njëkk gi mooy ne adduna boo xam ne dafa nekk ci loxool nit ñu nit ñu xam nit ñu dëng lii rek moo ñu ko yóbbee te insha allah bis dana ñëw mu feeñ adduna bu nekk ci loxool nit ñu xam nit ñu xam nit ñu dëng te nit ñu xam nit ñu xam nit ñu jub loolu lañ soxla woon yal nañu ko yàlla may wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain الحمد لله والحمد لله والصلاة والسلام على عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واعلموا عباد الله an allaha tabaraka wa taala yaqul wala yazaaluuna yuqaatiluunakum xatta yuruddukum an diinikum in istataau borom bi tabaraka wa taala wax na ci alquran nee na ngembal saay-saay borom daf koy yolomal waaye di ko tekki ngembal saay-saay borom daf koy yolomal waaye di ko tekki bu jekk ko rek takkaat ko aaya bi ma wax léegi loolu lay firi wala yazaaluuna yuqaatiluunakum xatta yuruddukum an diinikum in istataau yàlla nee ci alquran saay saay yi xeex diina seen ngembu duñ ko tekki yàlla nee na duñ dañ mukk di leen xeex fekk ñi ngi mun ak nuñ ko mën a ayuha nnaas kullu man raaytahu kabiran ya'tabisu minhu al-ghayra والهلم والبركة وحياة طيبة فإن كسب ذلك في ثمن السباب بوغين غيسه ماك مو خامني مونكي جام ماك مو خامني mu ngi am xam-xam mag moo xam ne mu nga ànd ak barke mag moo xam ne mu ngi dund dund bu teey boo ko seetee ci jamono ndawam la ko fàggu woon ndaw dafa am solo soo yàqee sa dund ci jamono ndaw ci ay caaxaani kese doo faale sa pas-pas sa xaqiida su soo nekkee mag loolu mooy nekk mag moo xam ne dafay perte lu bëri moo tax arab di wax ne waxtu woo gisee mag mu nekk ci tiraanga nekk ci barke nekk ci dund bu teey ànd ak imaan bu doy di jaamu yàllaam dara mënu koo yëngal mu ne fa inna ba saalika fii samani sabab boo ko seetee ba mu nekkee ndaw rek xamal ne yàqu doon ndawam mu ngi doon góorgóorlu kon ndaw yi il faut ngeen bàyyi seen xel bu baax ci jamono bi ñu nekk ndax jamono bi li li ñu gëmloo mooy xam-xam bi ham ham bi duñ ko liggé ham ham bi da ngay mous rek da ngay mëna jëm fa mëna tapalé rek ba am ko ayuha al mu'minun unsuru wa ansitu واعتبروا سمانكم هذا كثيرا من الناس يحربون القرآن وإفساد السباب لأن القرآن والسباب هم رجاؤنا bokk yi ci suñ jamono bi buñ settantalee dañuy dal di gis rek saay-saay si xeex bi ñuy xeex alquran di xeex ndaw yi ci nuñ leen mën a xaccee yóbbu leen ci ay caaxaan loo leen fo ba nga xam ne seen yoon dootul nekkati ci yàlla man nga leen a seen ci jumaa yi sax ñiy sëgg di siggi waaye loolu nekku ci seen xol yi seen deret yi la ciy daw mooy fo seen deret yi la ciy daw mooy ñàkk ñàkk discipline ñàkk respect mag ñàkk respect kalifa léegi boo duggee ci média bi nga gis nit ñi li ñuy ndaw yi li ñuy wax kalifa yi kalifa diine ak kalifa aada yi ragaluñ dara lu leen neex wax loolu dugal nañ ko ci dereti ndaw yi nañ taraaye mu génn loolu du mbir mi wum yaquluuna an al asyaqa yuxayidu tulaab gis nañ ci jamono ji dem nañ beneen daara yi nekk fi nit ñi di jàngale nañ leen ceeñ parce que daara yi dañuy eew xale yi dañ leen di tënk léeg-léeg nga dem ci daara fekk xëy na benn xale wala ñaar ñi ngi ko jëng li may wax rek mooy ñun kenn ci ñun bëgg na jéng xale man de mosuma jéng xale waaye boo demee ci daara fekk ku jéng xale bu dee juróom fukki xale la amee xëy na am na ñaar ñu ci dëgër bopp seen baayam bëgg nañ ñi jàng sëriñ bi bëgg na mu jàng xale bi ne du jàng amul benn solution nag lu mooy jéng ko rek te jéng nag. ñetti xeeti jëng moo am jéng bu njëkk bi mooy jéng boo xam ne pour teral borom la bu ëllëgee mooy jéng ko ci daara ji jéem koo dimbale mu xam dara mu yaru ndax dafa bañ topp àll bi di daw jéng boobu yow ni nga koy gisee ñi nga xam ne seen bakkana leen jiital dañoo gis ne jéngab toroxal la jéngab ñàkk teggiin la jéngab soxor la waaye ñaari li jéng ba nga koy xaar mooy bu ëllëgee mu ñàkk discipline di jël alali jàmbur di wax lu mu war ta wax ñi fekk ko ci biir jabaram yi fekk ko ci biir penc mi police yi jéng ko jéng ba moom lu ñu ci wax moom ñun ñëpp teg nañ ci suñ bët ci biir njaboot gi lañ lay fekk takk sa ñaari loxo yaan koof la di la puus teg la ci piko bi di daw dëkk bi yëpp di la xool loolu du jéng xanaa ñun dañuy toroxal doomu aadama ñoom waaw léegi ki nga xam ne nag juróom fukki xale mu ngi ko yoore xale yëpp a ngi jàng benn xale wala ñaar rek ñoo ci dëgër bopp topp xale bi di daw ñi bañ rek pour mu daw ñu dugal ko ci ruq xëy na yow bañ lay jëng sa kër ñëpp a ngi lay gis waaye kii boo dugg ci daara ji sax doo ko gis dafa am yu sew sewaan ak wax yoo xam ne noonu diine yi ñoo koy wax boo seetluwul rek ñu yàq sa xel xale dañ ko war a yërëm xale ki koy jéng daara yi dañ soxor sëriñ si nangam nangam lu tax mooy pour xeex diina ñetteeli jéng bi mooy jéng la boo léggee ca kanam yàlla suratu rahman yurafu almujrimuna bi simahum fa yuqsu binnawasi wal aqdam yàlla nee na boo léggee da nga gis ñoo xam ne seen kawar yii la ñu jël xew ko ci seen tànk yi sëqi leen comme ku téyee ganaar ci kanam borom bi tabaraka wa taala lu ñu wax ci jéng boobu moom ñetti jéng la de jëng pour teral nit ki ak jëng bi nga xam ne policier la ko def ak jëng bi la malaayka yi def taxawal la ca kanam yàlla borom bi nee na ci suratu xaqatu xusuuhu fa quluuhu suma aljahima saluuhu summa fi silsilatin sarha sabxuuna siraha faslukuuhu suratu xaq nee na da nga gis waajoo xam ne juróom-ñaar fukki junne ci malaayka ñoo lay jéng ci ceen yoo xam ne guddaayam man na juróom-ñaar fukki xasabu juróom-ñaar fukki junnee waxambaane xattanuñ ceen nga moom lañ lay takkee taxawal la ci kanam yàlla luñ wax ci jéng boobu moom kon yàq xeli nit ñi dong moo tax ñi naan xale yi ñëw jéng ci daara yi kenn du am daara di bëgg a jéng xale jéng xale taxu da jóg nit dóor xale mu gaañu taxu da nit di jàngale alxuraan kenn du def loolu ku ko def danga nga juum wala war la koo def xale yi ngeen gis ci biti ñi yelwaan amul ku taxawal daara bëgg xalem di yelwaani man de bëgguma koo gis waaye bu amee ka ko def nañ seetlu tax xanaa ñun suñ government yi duñ dee génne la euh, alal ju bëri joo xam ne dépense la bu jëm ci ministre ministre bi amee éducation wala loolu amut luñ cee jox daara yi ñoom xanaa bu sànni karta jotee daara yi duñ dee sànni karta xanaa ñu amee daara yi bokkuñ ci réew mi dépense biñ génne jox ko ministre bi mu wax ko jor ko def ci school bi lu tax joxuñ ci daara yi school biñ tabax mu nekk étage ñu teg fa ay toogu xale yi sangu ba seet ñëw toog ñi fay ticce bi jàngale xanaa loolu mënuñ koy defal daara yi wala loolu bokkut ci ministre bu dee ñu ne kaay leen jàngal ko kaamel ministre bu dee ñu ne kaay leen ngeen ngeen ngeen sangu suul ko ku doom ji juddu ñu ne imaam yi kaay leen jàngkati alquran yi président bu dee ñu ne gaaw leen ngeen dem jàngal ko alquran imaam ba ana nga jébbal ko ko lépp lu xew ñu ne daw leen dem ci alquran alxuraan ñi génn alal ju bëri nangu wuñ cee jox daara yi dimbale wuñ ci daara nga gis koo xam ne nii këram lay xaaj ñaari singul ruum ci lay dugal xale yi lalal leen basal ñi rankaloo fa di jàng alxuraan ñiy teg bët loolu ak alal suñ yoon nekkut ci duñ ci wax dara dañuy noppi rek ñi nga ubbi ay place yu yaatu def ko ay étage xiigal ci xale yi di leen jàngal ay lu weex ak lu ñuul yu ñàkk bopp te loolu métti dong la léegi alxuraan ci ñu yàlla waxoon ne mooy dustuur bi ku dee ñu ne kaa leen ngeen jàngal ko ko imaam yi ñoo lay toppatoo su ëllëgee alquran jooju moo la war a ramm nanguwuñ ci def dalasi ba pare naan daara yi dañuy sonnalaate daara yi dañuy sonnal xale yi ndax noonu la ndax nii la bu leen nangu ñu wëlbati seen xel yi kenn a samp daara pour sonnal xale xale ku ko xam doo ko sonnal kenn a toroxal xale waaye ñi nga xam ne ñoo ñu jiite ñoom ñoo génne seen responsabilité ci mbiri daara yi su leen neexoon niñ sampee iskul yi ñu samp ko daara ku bëgg dugal ci iskul nga dugal ku bëgg a dugal ci daara nga dugal wala nga samp daara boo xam ne mën na ñaari yépp parce que xale yu nitu yàlla mooma nee ne mbuus la saag la loo ci def moo caa nekk mën nañoo samp daara joo xam ne danañ fa jàng english mu nekk métier ñi jàng fa alquran ñi yar leen waaye nga samp place boo xam ne ña fay jàngee yaa leen di fay ña fay jàngee da leen di toppatoo buñ feebaree yaa leen di faj lu nekk nga defal leen ko daara yi ngeen sànni leen ci àll ba seen yoon nekku ci ñoom du ngeen leen dimbale da ngay dugg ci kër wala nga dem ci gouvernement bi oto yi ñu amee woon daaw jéeg yëpp ñu ngi ko folli teg ko di ko jaay imaam yaa ngi ci dëkk bi di taxawaalu lu xew ñoom la ñuy oo soo demee ci bunt terminal nga bëgg dugg bu benn cooj bi lay liggéey su agsee ñi may ko mu jàll imaam yaa nga rang ci buntu terminal mënuñoo dugg faale wuñ leen sax te ku dee ñu ne dem leen ooy xale yi ñu jàngal ko alxuraan naxe yi bëri na waaye seen bopp ngeen naan ndax man leen ne ndax borom bi tabaraka wa taala yan nañ yàlla may dégg ak topp yan na yàlla jubal ñu yan nañ yàlla jox njubam alxuraan yan na yàlla ubbiwaat booda yi ubbiwaat ayapood yi ubbiwaat poor yi ubbi waat business bi yal na feebar bi dem ci àll ba saay saay si koy def yàlla ñoo leen moo leen man yal na yàlla not leen yal na julli di delluwaat ci seen pas-pas yi démb yal yàlla jàmmal ñu jàmmal njaboot gi yàlla def jàmm ci réew mi sànni carte bii di jublu si des na de waaye dinañ ci ñaan yàlla lu tax ñi ci ñaan yàlla mooy nit ñi ci seen bopp surtout ndaw yi dañ leen a dofloo ba nga xam ne politique bi daf leen soppi léegi mën nañoo rayante mën nañoo dog seeni mbokk ngir politique bu ñàkk fayida bii nga xam ne képp koo ci sànnil carte bu toogee fàtte la nit ñi il faut ñu eewu yàl nañu yàlla boole dimbale wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa ali wa sahbi ajmain aqulu qawli hasa wa astaxfirullah li wa lakum wa li sairi lmuslimin qomo ila salati allahu akbar allahu akbar ashadu an la ilaha illa allah أشهد أن محمد رسول الله هيا للصلاة هيا على قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استعوا أقيموا صفوفكم واعتدلوا الحمد لله الذي قال في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وعليكم نارا وفي الحديث ما نهل والد ولده أفضل من أدب عزل أيها المسلمون المؤمنون واعلموا أن غربتنا اليوم يدور حول إرساد السباب حديثنا اليوم موجه إلى السباب الذين هم رجاؤنا ولعاسى ينبقي على السباب أن يسلهوا دينهم ويعلوا هممهم وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين bakki جلدي yi ñu ngi ragal yàlla ak topp yonentu yàlla muhammadu salallahu alayhi wa ala alihi ci mbooleem yëngatu yi fàttali suñ bopp fàttali leen aaya alquran bi ci sorotu taarif borom bi ne yéen ñi gëm yàlla fexe leen ba mucc ci safara musal seeni njaboot